maanaam moo fi toogal monsieur le président de la ñu jël sunu nuyoo nuloo Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw ak ñaanam ak cantam teg ko ci loxoom mu tegal nu ko ci loxoo président Macky Sall nuyu monsieur le maire Amadou Samb muy premier magistrat bu Cambérène ak conseil municipal bépp ñëw nuyu nag suñu borom dëkk El yaat Yatma Aan Diop teg ca El Duudu Aan teg ca Yatma Musuma Maam Sibori tëje ka suñu mag Issa Ñaa ñëw ci El Hadji Omar Sarr mi nga xamante ni mooy président délégué de quartier Cambérène yépp ñëw nag ci suñu imaam ratib libaas loo ñu jël moom ndax ñoom imaam yi ñoom la sëriñ bi yebbi ci ñoom di jox suñu nuyoo a imma yi ne ci gox bépp ak yi fi ñëw ak ñi nga xamante ni ñoo toogal sëriñ bi ci gox goxaani teg ci loxo moom el imaamu ratib mu jottalelu nu ko nuyoo repré euh, président groupe Mass. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam. على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أصحاب الفضيلة والسماحة ممثلي البيوتات الدينية العريقة أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مدينة سيدنا عيسى روح الله كمبرين المحروزة بإذن الله وبالنيابة عن الخليفة العام سيدنا الحاج عبد الله جولاهي أعزه الله وأطال بقاءه الذي شرفني وكلفني بهذه المهمة النبيلة أرفع أسمى آية الشكر والعنفان إلى الأقوة الأعزاء ممثلي الأسر الدينية عريقة متمنيا للجميع كل التوفيق والسؤدد والنجاة وأن يحفظ المولى سبحانه وتعالى قادة وزعماء الطرق الصوفية في بلادنا الله يالله jàppale لين bu baax téye leen jàppale leen ñëw ci waa croix ñi nga xamante ni ñu mais kaw suuf lu fi waay dañ la kaa dénk ëllëg yàlla da di wax naa ko sànq buur bu maandu la balaay àtte ba àttee ba teg yëpp nag ba nu li diw xaalidiina fiyaa ah xamal ni am nga nag waaye fii ku amoon moom sa bakken koo xamante ni yow dañ lay yëkkati solal leen tëral leen ko gasal leen ko sikkaral leen ko ñaanal leen ko mënoo dara donc nee na astafaadulul xuluqi nee na nit ñi ñu nga gënantee ca jikko yu rafet ya ñu seenu ca ñoom nee na jikko yu rafet yi moo tax Seydina Limaamul Mahdi wax ca waxam bu réy ba nee na na leen farata di yëkkati mu ne safaan ba toog leen adduna farata laa ne bu ngeen ko xoolee suñu réew yi bari na ci coow loo xamante ni du farata parce que lu tax du farata solution ba yoroo ka Sénégal seeni problème ak feneen est-ce que xam nga lan la cër cër yi moo leen sonal te cër yi programme am malaaka sax xamu ko ci asal la ko yàlla c'est son décret boo xamee ne malaaka du ko gis waxuma la keneen domaine réservé la par excellence nit ñi bu ñu bu malaaka yi mënoon yër wala jinne yér yër fu cër musibaam bu wàccee ci nit ñëpp a dee moo waral yàlla day bàyyi gars yi di mbëkkanti tuy tuy muy gën di yëkkati rek nga naan ah ah yàlla yëkkati waaja rek aa ba nga xëy di aa bu tëdd moo waral cër yi moo fi ne bu ko defee waxtu wu ñu xamee ne innal fadla bi yadi laa rek noppal kon yàlla nañu ko yàlla defal ñii am bay tuurule ñette des amuñu lu for di daani lay istamiaan ndóol de daal di dugg nañu fexe combattre la pauvreté comme ni mu ko waxee

waaye nanu def microcrobe la rek bu góom bi génnee nañ la ci nangam ñàkk bu mu fi jóg déedéet jamono àggatul foofu nanu fexe zakat di faj soxla yi loolooy wax ji kooku nag borom xam-xam yi ñoo ko moom nañ ca xalaat nga gis ni sunu njaboot gi mooy xale yi ñooy siiblu fi ñu toll gars yi

ah wal baxri bi ma donc nit a bind yàqaat ñàkk déséquilibre lu fi taxaw nit a ko def xale yi daanu ci océan bi guddeeg bëccëg ñu leen di rey nee naa leen fii daaw tubaab yi ak ñeneen déedéet ba ñu soxlaa ñun boobu démb la woon coloniser nañu jël nañu suñuy alal mais yàlla ci mbaaxam def na ni tey ji ñëpp a ngi retourné Afrique continant bu vierge la mais ñun suñu main d'œuvre la ñu tabaxe seen i seeni seen nangam mais tey soxlaatu nu waaye soxla nanu nag li ñu yor ah xale yi di daw di daanu ci géej gi ñii di daanu fi nee naa leen daanu ci géej gi nag lu ci bari ci suñu société yi ci lañu nee naa leen yor njaboot ci sa kër ay njaboot doomu diw de moo étage fee yow nag da ngaa ñàkk jom xale bi toog rek xanaa gisoo diw fële la jóge amoo lii amul xale bi xëy soog nga géej gi ndeysaan ndax jom ba dugg ci géej bari na loo ci kër yi la nit ñi nañu gëm yàlla kon gars yi sant nañu yàlla bu baax fi may tëje fu ñu bëggee kawe la góor ga waxoon def naa imam shafii la iza aradtum dunia fa aleykum bil ilmi wa iza aradtum al axira fa aleykum bil ilmi وإذا أردتم الدنيا والآخرة فعليكم بالعلم اللهم صل على سيدنا وكل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله